jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu maanaam 15h jàpp 16h du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi tey ñu dellu am mbégte dalal Souleymane Alioune Diallo mi nga xam ne moom mooy njiitul ONG bi di Otra Africa. Euh, moo ko jiite ba pare tamit nekk porte parole euh, Boubacar Seye mi nga xam ne moom lañu tëj ci kaso bi te mu jiite Horizon Sans Frontières euh, tey nag xam ngeen ne mbokk yi bu ñu invité Souleymane Alioune Diallo mu nekk porte parole Boubacar Seye ba pare jiite ONG bi di Otra Africa muy ONG boo xamante ni ñoo ngi ko sosees diwaanu bitim réew ci ci Espagne war ngeen a xam ne li ñu ëpp lu ñuy waxtaanee dina bokk ci mbirum Boubacar Seye mi nga xam ne ma ngi ci kaso bi ginnaaw ay kàddu yoo xam ne moom wax ne Union européenne moom la dugal ci réewum Sénégal ngir ñu saafara euh, li nga xamante ni moo jëm ci wàllum immigration clandestine euh, kàddu yooyu sax jural ko kaso euh, loolu si lañ fas yéene waxtaanee Souleymane Alioune Diallo réew mi FM a ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la ziar di la gërëm di la sant. di nuyu seen auditeurs yi di nuyu askanu Sénégal euh, di ja di la jaajëfal ci invitation bi ñu may ñu am opportunité waxtaan ak askan bi ci mbirum Babacar Seye. Euh, jërëjëf Souleymane Alioune Diallo nuyoo bi mat na matale na euh, Boubacar Seye ma ngi ci ma ngi ci kaso bi kero bi nga xam ne ñëw na aéroport ñu ñu teg ko loxo jël ko yóbbu ko section de recherche. Euh, entendre ko euh, def ko garde à vue euh, période boobu noonu nan ngeen ko dundee yéen ak nan nga jàppee tamit ne loolu noonu la ko Boubacar Seye dundee am na ci mbetteel wala amul ci mbetteel ci jàpp gi. waaw question bi am na solo am na orientation donc Boubacar yaakaarul woon li ko dal nii ndaxte liggéeyul waxul li nga xam ne. liñ koy teg nii war na nekk si moom xam nga caay-caay buy def war na xaar lu koy luy dal si kawam caay-caay suy def lu dal si kawam rek dina xam ne si caay-caay bi la mais kuy jubal di jaarle yoon euh, caay-caay bu dalee sa kaw rek da ngay jaaxle Boubacar dafa waxul deful loo xam ne yoon war na mën a teg si loxoom euh, li indi genèse fi ñu toll mooy ni koy waxee Boubacar fii la nekk di euh, weeru décembre bi yëpp Boubacar mu ngi dem bitim réew si booru début décembre Boubacar bi muy dem doomam bi nekk bitim réew moo waroon feete ñaar fukki atam Boubacar dafa fonk njaboot mu ne ginnaaw ñaar fukki at si xale bu góor waxambaane dafay laaj nga dem waxtaan ji ak moom sonjaat ko defaraat ko tatagal ko Euh, yokkaat ko Boubacar demoon foofu profité waale si vacances su Noël yi xam ngeen Europe moom Noël dafa am solo pour mu nekkaat ak njabootam ñaari doomam yi euh, mu noppale ko waale si fan yooyu mu am ku ko woo téléphone ne ko ndawalu buur la takka der la da ko bëggoon laajte moom si euh, wàllum wax ji nga xam ne Boubacar wax na ko si koppar yi Union européenne di dugal fii si senegal Boubacar ne ko ah dafa fekk ni que man maa ngi bitim réew mais suñu yàlla mayee bakkan su ma ñibbisee Sénégal naa leen ñëw wuyu si ñu ñoom ñaar ñu jàpp loolu mag Boubacar ñuy waxtaan waxtaan nañ si nag waxtaan bu bu bu takku bu am solo. avant muy ñëw loolu Espagne la ko fekk euh, moo tax su may dégg ñu ne Boubacar dafa amoon interdiction de séjour euh, wax jooj daf ñuy xaw a jaaxal parce que Boubacar bi muy dem aéroport fii sax def na si. ay photo dugal ko si Facebook am di tàggatoo di ne maa ngi nii toog ay db di waaja dem Espagne ku mën a génn si dëkk bi euh, toog aéroport di def foto ba génn si dëkk bi kooku na la war a mun a amee interdiction de de de sortie même même su ko amoon euh, police wala gendarmerie dafay signaler takk der yi nekk foofu bu Boubacar ñëwee Sénégal sécurité bi passé na foofu aussi quand waaw donc loolu mooy firnde ni moom kuy photo di yóbbu Facebook kooku làqatuwul. donc loolu mooy firnde ni instant boobu noonu Boubacar kenn notifié wu ko interdiction de sorti kon interdiction de sorti territoire boobu nañ ko teggi ñu teg ko fële. léegi boobu wër na. léegi mu ñëw si. Euh, li ñuy wax diffamation bi. mais doon ngeen waxtaan avant muy ñëw Sénégal que ne que ne gendarmerie woon na ko. Euh, doo dégg mooy li mu la wax si njëlbeen mooy ne am na kenn ko ko woo nee ko euh, ndawalu gendarmerie la moom Boubacar mu ne ko su ma ñibbisee rek naa la wuyu si Boubacar sax télé coup de téléphone boobu moo tax Boubacar euh, fomba date bi mu waroon ñibbisi Boubacar le vingt la waroon ñibbisi mais Boubacar pour ñëw wuyu ndawal buur boobu tax na ni mu changé biam avancé date bi mu waroon ñibbisi donc euh, dafa avancé date bi mu waroon ñibbisi même billet bi mu waroon compagnie avion bi ko waroon indi sax dafa changé compagnie avion bi jëlaat beneen compagnie avion loolu moo waral ni ko bi mu yeggee aéroport di dugg euh, policier waa police de l'air yi nee ko ah dañ la fichier yow da ngay xaar bi mu xaaree xaar ba kooku ñëw nee ko ah dañ lay téye parce que dañ lay dafa am lu ñuy seetu si yow. bokk naa nag si ñetti nit yi nga xam ne si guddi boobu Boubacar woo na leen ne leen ah man dama ñëw ba aéroport ñu téye ma mu nekkoon nag lu ko jaaxal trop mais ba foofu xelam mu ngi dal parce que jàpp na ni euh, ak lu mu munti demee rek luñ koy laajte la bi ñu toogee noonu bi mu toogee foofu ba mu xaw a leer dafa woowaat numéro bi nga xam ne mooy takk der bi nga xam ne moo ko woowoon mu ne ko ah man de yow euh, da nga ma wax lii mais maa ngi fii ñëw ñu jàpp ma takk der bi ne ko ah man jógewul si man mais baal ñu def vérification yi vérification yooyu nag moo indi après ñu ne section de recherche moo ko soxla ñu jële ko foofu aéroport indi ko section de recherche Colobane wax dëgg yàlla tamit bi mu ñëwee Colobane euh, ajjuma lañ ko gis ajjuma si ngoon laa ko gis samedi ñoo nekkoon dimanche ñu ngi bàyyi xel si moom euh, boobu yëpp wax dëgg yàlla euh, ñuy nuyu commandant Mbeng ak euh, capitaine bi ko doon entendre ak euh, vraiment waa session de recherche ñëpp euh, ils ont fait preuve de professionnalisme bundu xataluñ ko dara sonnaluñ ko dara jox nañ ko ak xam ak yelleefam mais nag jàpp dafa métti téye koo xam ne da nga ko téye si yenn conditions yi dafa métti. donc ba foofu daal Boubacar Sèye moom bi biñ ko laajtee foofu si session de recherche par rapport ak li mu wax defe naa bande sonore yi fan yii di ñëw enquête bi moo kii mais fan yii di ñëw di ngeen dégg li Boubacar wax Boubacar. fenul sosul sàccul tappalewul waxul lu fi kenn waxul euh, dafa laajte alal bi union européenne di dugal ci dëkk bi ñu ne dafa war a faj ba nga xam ne xale yi dootuñu génn si diggu mbas mi bu ñuy gis gaal yi di génn xale yi di faatu si géej gi loolu du ko ëlëm ba mu nee alal boobu fan la dugg parce que alal boobu bu nekkoon pour xale yi te alal bu takku la bu nekkoon pour xale yi bu ñu génn la kon mbëkk bi waratul woon jugaat donc nañu leeral alal boobu ñan ñoo ko jël ak fan lañ ko dugal ak ban njëriñ lañ ci def Boubacar loolu la laajte te loolu nag yaakaar nañu ni loolu warul mën a tey tax ñu yóbbu si nit kaso kooku boo ko tontuwulee leeralal ko li mu wax li si ëpp solo. mooy ni que kan mooy Boubacar Sèye c'est-à-dire xam nga yow baana baana bi nekk Colobane am na loo xam ne mënu ko laajte Boubacar laajtewul waxu pétrole bi parce que yoonam nekkul ci pétrole Boubacar laajtewul napp bi malgré mën na ci wax mais Boubacar dafa ne xaalis bi nga xam ne migration moo ko ñu leen liñ ciy dugal te moom muy président wu association association boo xam ne si wàllu migration lay yëngatu ñuy fàttali seen auditeurs u mi FM. ñu leen di xamal ni que tey Sénégal suñu xamee kaawu Mbayang Diop bi ñu waroon rey Arabie Saoudite Boubacar moo tax ñu xam ko moo si dox te xar si takk euh, takk ndigam dox si lim si war a dox ba état wu Sénégal jël dossier bi boobu ba léegi kooku faatuñu ko Alkali Cissé bi mu amee problème euh, diggante Maroc ba kii yëpp euh, Boubacar Sèye moo doon soññ nit yi taxaw dina kii doomu Sénégal la buñ ko toroxal takk si ndiggam dox si liñ ci war a dox xale yi nekkoon Russie bi ñu amee problème passeport pour renouveler seen kii Boubacar Sèye moo alerte état bi ne jàppale leen xale yi xuwaan bi coronavirus bi jugee gars yi di wax waxu étudiants yi dañ leen téye séquestré leen di leen toroxal di leen tumuranke mais Boubacar moo si njëkk a wax kon kooku xam nga ni bi mbuju sunu mbokk lamin Diack problème mu Lamine Diack ñëpp dégg nañ ci Boubacar Boubacar fépp fu ñu musoon wax waxu sénégalais bu nekk bitim réew tant que yaa ngi ci jàmm doo xam Boubacar mais foo commencé am fitna foo commencé am lu la sonal tuuti rek Boubacar nga mu xam la mu ñàkk la xam da koy def affaire am kooku wàllu migration rek lay liggéey waaw kooku nag bu laajtee ñu leeral ay koppar yu jëm ci migration kooku da nga koy woo nga waxtaan ak moom su laajtee ngeen def débat ngeen def débat ndëgëm. tiiñalul nit et encore maa ngi koy waxaat opinion nationale ak opinion internationale bi ñuy déglu na doomu aadama bu am bakkan ñëw taxaw ne Boubacar man la wax na institution ñëw porter affaire bi ne Boubacar suñu direction la wax wala suñu agence la wax wala suñu ministère la wax su boobaa ñu xam ne ñii la mais ñu mbuboo état rek. bëggal dal si kawam te moom si boppam muy démembrement état union européenne jël xaalis bi jox état mais xaalis bi xanaa kañ du si ngelaw la jëm. d'accord mais euh, li nga xamante ni tey mooy xaalis bi union européenne euh, jox Sénégal loolu moom euh, jàpp naa ne sénégal yu baree bari am na ñu information que ne union européenne mu ngi jàppale Sénégal ci lu jëm ci xaalis boo xam ne pour ñu xeex li nga xam ne mooy immigration clandestine la. loolu information la boo xam ne ñëpp am nañu ko mais état bi ñoom li ñu jàpp euh, wala li ñu toppee Boubacar Seye maanaam ñoom dañoo jàpp ne dafa wax ne état dafa luubal dafa luubal xaalis boobu ñoom euh, division de fausses nouvelles loolu la ñu jàppee Boubacar est-ce que tamit Boubacar moom ci li ma liir ci presse bi nee na ay document la jot yoo xamante ni ci Union européenne moom la jóge ginnaaw bi mu interpellé délégation Union européenne ci benn séminaire bu Alioune Badara Cissé woon est-ce que moom Union européenne jox nañ Sénégal xaalis est-ce que tamit am nay preuve que ne xaalis bi dugaluñ ko fañ ko war a dugal. waaw euh, li ma la si mën a euh, li ma la si mën a yokkal si wax ji nga laajte noonu mooy euh, effectivement bëri na ñoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi woon si rencontre boobu. séminaire boobu séminaire boobu man maa ngi fa woon ndaw soosu ñuy wax man ak moom ñoo toogoon. man maa ngi woon ci séminaire boobu amoon na ay kilifa Afrique yu bëri yu fa nekkoon. amoon na ay anciens commissaires yu fa nekkoon amoon na ay anciens ministres yu fa nekkoon bi ñuy bi Boubacar di waxtaan ci biir waxtaanam la insister insisté ba ndaw si ne ko oh, bu ñu jugee ci si su ñuy génn jox ma sa mail naa la envoyé ay documents maa ngi lay woon nii ay photo peut-être duñ ko kii bi ñu jugee ci séminaire boobu. bi ñu génnee ci séminaire boobu ñoom ñaar ñu paasante ay mail da ko joxaat rendez-vous ñoom ñaar ñu daje ak benn délégation wu acteur migration ñu daje Union européenne fii ci Albert Saro gis na photo baa ngi nii di ko màndargal Boubacar mu ngi noonu ndaw sa ak noonu woo fonctionnaire Union européenne yi ñu ngi nii toog ñu def waxtaan bu ngande waxtaan bu am solo ci question migration donc Boubacar am na ay documents yu ko Union européenne jox Boubacar waa Union européenne recevoir nañ ko diffusion de fausses nouvelles amul foofu tey documents yi nekk di circuler may li firndewaat ni rek auditeurs yi amalgame bi nga xam ne tey euh, ñu bëri ñu ngi circuler benn rapportu fondation Endris Bold Boubacar sa waxul fa euh, rapport euh, fondation Idriss Paul gis na fondation Idriss Paul. Uh-huh. ñoom li ñu wax mu ngi nii dans cette étude a été commanditée pour sur commande de la fondation Idriss Paul au Sénégal Hein? Le contenu relève de l'unité de la responsabilité du, con, du, du consultant. Hein? Vu les possibilités de la fondation, BOL, toute erreur au commission relève de la responsabilité euh, du consultant. xam nga ni loolu ñoom nee nañu. te si wolof li ñu bindal nii mooy ni que juumte bu si amee walla fàtte am si ki bind le ki euh, rapport bi moom la concerné. te pourtant tey Sénégal kuy wax rek da ngay ne fondation Baol moo moo publier rapport bi te parti bi parti bu important la ci biir communication bi et Boubacar encore une fois de plus euh, tiiñalul kenn. waaw non non euh, tiiñalul kenn Souleymane. Mhm. Euh, ñu ñëw ci xa rapport boobu ñuy wax ndax mhm. tey dañuy wax ne. Mhm. dafa rapport boo xamante ni tey waa Idriss Baol ñoo ko génnee. fondation boobu. kane wane kane Union deux mille cinq ba 2019. dugal na plus de 200 milliards ci Sénégal. leneen li ma liir ci presse bi. tey ci samedi ji. mooy euh, journal bi nga xamante ni moom laa moom laa journal boobu nga yor noonu. jox ma journal boobu moom la. Euh, bi bind na ko nee na li nga xamante ni tey moom mooy euh, xaalis bi nga xam ne moo dugg Sénégal jëm ci xaalis boobu gis nga juillet 2016. Euh, ba deux mille dix neuf bi deux mille dix neuf deux mille vingt lu toll ci cent trente milliards. yoo xamante ni tey Union européenne dugal na ko fi. Euh, maanaam xaalis bi. Euh, dugg na fi jàpp naa ne état bu Sénégal weddiwul ne xaalis dugg na fi. maanaam da na a luubal xaalis bi jàpp naa loolu la état bu Sénégal nanguwul. waaw léegi waxul luubal boobu. wax ji foofu la toog. Boubacar dafa ne question de poser. moo tax ma lay ne xam nga fii am na fi benn procès bu fi am temps yi ba justice mooy quatre vingt quatre vingt quatorze milliards yi xam nga nit dafa porter plainte nit. dafa am ñaar ñu porter wante plainte. kii ne da nga détourné kii ne. détournement est xam nga ñu débouté. foofu dafa am kenn ku wax kenn ku kii mais baka dafa ne alal bi ñuy wax nii mu toll ci xayma bii fi ñu ko waroon dugal. mooy xale yi. bu bu bu xale yi war a génn. mais émigration clandestine bi dafa jugaat gën a takku xaalis boobu su demoon si émigration clandestine bi comme ni ñu koy waxee comme ni ñu ko bindee si kayit bi kon xaalis boobu fan la dem. mooy question bi si bi nii waaw mooy xaalis boobu fan la dem c'est-à-dire as xam nga c'est-à-dire Boubacar newul kenn dafa sàcc. Mhm. kenn mënul ne Boubacar dafa ne dafa sàcc. Mhm. Boubacar dafa ne alal bi ñu bi bi toll noonu. te ñu jëble ko. fan immigration fan lañ ko dugal fan lañ en fait dafa interrogation mooy xam nga détournement. du sàcc. mën na yow mën nga xëy sa micro bi nga jëmle ko fii. di xaar lii fekk ne li nga siy xaar demewul li demul foofu feneen la dem. bu Boubacar dafa ne day détournement bi. si alal bii nañ ko leeral. maanaam xaalis bi ndax fi mu waroon dem foo ndax yegg na foofu ne ñu wax ñan ñoo ko war a jot parce que aide au développement dafa war a ne vraiment pauvreté. moo dégluwaat leen bande bu ba ba dégluwaat leen. non Boubacar man invité naa wax na ci. te te leneen li ma siy teg mooy ni que pour ñu mu leer si bopp nit yi Boubacar citewul benn yoon gouvernement wu Sénégal doo dégg gouvernement Sénégal amu si Boubacar dafa ne dafa am succession ñu fi mu si yore réew mi te. affaire u immigration ñu tàmm ko wax te alal bi dafa bëri bëri boo xam ne feeñul ci migration bi loolu nag moom wax dëgg yàlla bëccëg ndar kàmm ñu lay ne si bëccëg nga nekk di la woon sa takkandeer nangoo gis jant bi moom euh, kooku moom kenn mënu si dara nag. Euh, jërëjëf euh, Souleymane Alioune Diallo mbokk yi ki ngeen dégg ni moom mooy porte parole Boubacar Seye bi jiite Horizon Sans Frontières waaye moo jiite ONG tamit euh, Otra Africa tey xam ngeen ne tey jii si samedi ji journaux yu bëree bëri si la ñëw journal bi sax dafa ne où passent les milliards investis dans les politiques migratoires point d'interrogation la waaye constat bi nga xamante ni tamit def nañ ko Souleymane mooy constat d'échec ci politique de migration loolu moom. vraiment euh, constat la boo xamante ni tey moom la euh, ñu bare bare euh, gis léegi tamit li ñu war a wax tamit mooy que gis nañ avant coronavirus di ñëw mooy mbëkk mi taxawoon na est-ce que du xaalis boobu tamit investiroon nañ ko ci lu jëm ci wàllum xeex émigration clandestine léegi nag phénomène bi mu ñëwaatee est-ce que du caagi ne mbëkk mi moom moo ko waral. waaw xam nga. yow da nga ne essai nga poser question yow journaliste nga sa liggéey mooy poser question ñu tontu la Boubacar Seye liggéeyam mooy wàllum immigration mbëkk mi moom day xeex bu mbëkk bi jug mu poser question parce que moom xam na ni li mu jot ci document alal boobu yëpp bu ñu ko defee fi ñu ko war a defee mu yegg ci ñi mu war a yegg waxu mbëkk waratuñ ko wax Sénégal loolu leer na mhm. ma baamtuwaat ko maanaam. yow journaliste bi sa liggéey mooy poser question ñu permettre la ko moom liggéeyam mooy na mbëkk mi arrêté mu laajte xam alal bu bari dugg na si mbëkk mi mu gis ni que mbëkk bi jugaat na mu ne alal bi ñu jagleel mbëkk mi est alal boobu yegg na si mbëkk mi alal boobu est-ce yegg na si ñi mu waroon yegg su yeggoon si ñi mu waroon yegg kon mbëkk mi du jugaat. d'accord loolu moo ko yóbbale fi ñu ko. fi mais mais man li may laaj mooy. dafa am mbëkk mi bi mu ñëwaatee. dafa tombanteeg coronavirus. Mhm. bu doon corona waaw non waaw su doon coronavirus amul. Mhm. askan bi continuer di jël ci gaal yi. Mhm. ñu mën a wax ne kon xaalis boobu kat à quatre-vingt-dix pour cent investiruñ ko dugaluñ ko fañ ko war a dugal. mais dañoo gis ne at yii yépp passé. ay la yéwén mooy mbëkk mi wàññeeku woon na bu baax a baax ba déggatoo ko. léegi mbëkk mi mu su dikkaatee. est-ce que du coronavirus bi moom moo indiwaat mbëkk mi. léegi ma tontu la tontu bu leer naññ si loolu lan mooy si wax ji nga laajte nii lan moo ci jël nit ne ko ràpp si kaso te munoo toog ak moom si xel ak xalaat ak waxtaan bu leer moom yaakaaram mooy ni que dafa laajte. Hmm. ne ah xaalis bi mën xaalis bi su affirmé woon sax fekk du interrogation ne xaalis bi dañ ko détourné yow am nga xel am nga xalaat yow la nguur jox pouvoir. yow yaa ñuy jiite yow yaa yore instrument yow yaa yore information yépp kii wax dëgg yàlla lanceur d'alerte la mais demal ak moom ci débat contradictoire ñëw firndeel ni ko comme ni nga ko waxee nii ne ah alal bi jot nañ ko waaye ak mbas mi jug ni nii dañ koy orienté waat pour des programmes prioritaires si wàllum santé wala si wàllum leneen nga def débat contradictoire loolu ana yoonu kaso ci biir loolu. d'accord léegi euh, léegi Souleymane xam nga man euh, expliqué wu ma que ne xaalis bi ñu war a dugal ci euh, immigration clandestine dañ ko dugal ci coronavirus dafa ñëw ñu dugal ko ci wàllum wér-gu-yaram dama wax rek ne immigration bi ñëwaat est du li ko waral. bokkul si jafe-jafe yu mbas mi teg Sénégal ci mbirum crise beneen bi tamit euh, émigration clandestine bi ndax ministère de l'intérieur ñoom dañu wax que ne ñu ëpp ñuy dem ci géej gi ay mool lañ maanaam ñoo xamante ni dañu doon napp te ñi nga xam ne ni ñooy napp soo leen laajee dañ lay wax ne la géej gi dañ koo jaay amatuñ lu ñu nappee est-ce que du kon émigration bii mbas mi warulu ko ak géej gii nga xamante ni tey ay la yéwén bateau étranger yi ñoom ñoo ëpp lu ñuy napp est-ce que du ñooñu ñoo indil jafe-jafe tamit ñu nekk ci géej gi ba émigration clandestine bi ñëwaat. sëñ Seck sa essai essai yi bëri na de donc war nañ la woon mën a tontu ku mel ni Boubacar Pay di consultant xam-xamam màcc si loolu muy def ay recherche question yooyu. kooku da koy woo nga waxtaan ak moom par rapport ak loolu kooku doo ko jël ne ko ràpp si kaso bi ndaxte dafa laajte Boubacar day jël ñetti fan yoo xam ne du nelaw su amee benn information doo koy exploiter exploiter exploiter ba am lu bëri lu si kii gis na essai essai yooyu Boubacar ñun bokk nañu si njëkk alerte si mois de mars bi fi gaal génnee dem def directement Tenerife te dara téyewu ko dafa génn fii rek ñu échanger Boubacar sa boobu daf ma ne bàyyil man mu continuer sama recette mais man bi ma si amee autre Africa bi ñu si amee firnde ni que gaal bi fii la génnee Mbour Tefes def direction Tenerife ba biir Tenerife wàcc xale yi daw ci biir plage bi policier jàpp leen dara jàpp leen ñun ba période boobu la ñu alerté semaine bi si topp la Boubacar commencé dankaafu état ne leen ah jug leen si mbir mi gis nga Boubacar dafa wax ñetti fan rek ñu ne ñeenti gaal egg nañu. donc ce qui veut dire que ci diggu mbas mi la Boubacar commencé interpeller état commencé moom li rôle am mooy lanceur d' alerte faf nag ci diggante bi affaire bi nekk maara day taali xëccu bi muy xëccu noonu ñu nekk nag après crise ñu siy bokk ñu siy wax te à chaque fois boo xoolee ñi nekk si acteurs yi suñu waxee rek nguur gi weddi ki si kii njëkk a wax waxu chiffre si affaire yi ne ah li ñuy dégg si ñu dee si mbëkk mi jug nii mu ngi tudd uh, Awa Diop Pathé Ndiaye mu ngi nekk uh, Las Palmas de las Grandes Canarias moom mooy jigéen bu ñuul bu police espagnole njëkk a ndax liggéeyam ak xarañam ci question migratoire kooku kon du waxantu su waxee dara état wu Sénégal da ko war a woo wala collaborer ak moom mais gisa dafa wax rek ci saa si ñi yore euh, question boobu ci gouvernement bi dal ci kawam weddi ko ba danka ba jëkkëram dañu mujjee jëkkëram da ko mujjee dankaafu OIM partenaire la euh, partenaire stratégique la sur la question migratoire OIM publier chiffre ñu ne ko non chiffre boobu baaxul Boubacar wax gis nga Boubacar bi mu waxee boobu ba léegi am na kenn koo xam ne bataaxal yi ñu ngi tudd benn xale bu góor la boo xam ne du ma tekkiwul dara pour ñàkk woo pour ba du ma manqué respect seen auditeurs yi mais koo xam ne moom daal lenn rek moo ko yitte bëgg na jiite sénégalais de l'extérieur yi xam nañu ni tappale sos ak fen rek la nekkee ci sénégalais de l'extérieur amul benn sénégalais boo xam ne mën na ko bàyyi xel kooku daal moo def ci page Facebook am commencé saaga Boubacar quelque temps après mu dankaafu Boubacar parce que kooku xam nañu ni dafa jege waa nguur gi du sori yi ñu nekk ci ci nguur gi kooku bind ci page Facebook am nee ko bés yi di ñëw di nga tontu ji si yoon li ngay wax nii loolu mu ngi si page Facebook kooku te inter te ñii di suivre kooku si page Facebook am dina am. man sam boppam mu buggoon tontu Boubacar ne ma santu ma la ko bu nekkee man ngay waxal kii yàgg na ma saaga bàyyi ko mu dem te kooku dafa jege ak waa nguur gi. da jàpp daal ne Boubacar dafa am lu làqatu ci ginnaaw. jàpp Boubacar bi xam nga mooy li may wax nee nañu soit transmis la ñu jox waa session de recherche euh, procureur dafa am ko ko actionné. procureur ngelaw du ko actionné ak poussière doomu aadama moo ko actionné te Boubacar ñi nekk ci nguur yi sànq yaa ngi wax waxu ci biir waxtaan maak yow ci couloir yi yaa ngi may wax lan moo tax participer wuñu ci dialogue nationale bi déggoo leen ci diaspora bi ak euh, sénégalais de l'extérieur Boubacar da ko naqarlu ba tëdd ci suuf lan moo tax ñi organiser dialogue national bi lan moo tax mënuñu woo Boubacar suñu woowulee Boubacar si question migratoire si les sénégalais de l'extérieur fii am na ñoo xam ne xam nañu ni seen yar seen teggin seen xam-xam bëgg sénégalais de l'extérieur xam nañ si seen pas-pas te bu ñu nekkulee ay góor xam nañu soxna yi ñoom dañu tey ku mel ni soxna Ngóone Ndoy wax dëgg yàlla Sénégal apprécier nañ ko si contribution bi muy def si débat bi Ngóone ndooy ministre la fi woon question sénégalais de l'extérieur la yore woon Ngóone Ndoy tey mu ngi participer. ci CSD di réunir sénégalais yi nekk bitim réew yëpp ak ñoom may Maysa ak ñeneen ñu adduna bi yëpp ñu ngi jéem a dajale euh, sénégalais yi dans le cadre de concertation des sénégalais de la diaspora te loolu waa nguur gi xam nañ ko. lan moo tax lan moo tax mënuñu woo Ngoné Ndoye yóbbu ko jaloog national. wala concertation bi ñu doon def des forces vives euh, pour euh, Covid 19 bi ñu doon dempale ñu woo Ngoné Ndoye wala ñu woo ku mel ni professeur Ali Tandian bi nekk université Saint-Louis wala ñu woo euh, l'ancien ministre de la famille nu mu tudd Ndioro Ndiaye mu ngi liggéey OIM bëri na ay acteurs yoo xam ne. peut-être Boubacar arrangé wu leen mais bëri na fi ay acteurs yoo xam ne tey suñu taxawee di wax waxu migration suñu taxawee di wax waxu sénégalais de l'extérieur suñu taxawee di wax waxu diaspora rek man damay noppi ndax lan parce que xam naa ni ñii mën nañu porter sama plaidoyer mais nga jël kenn koo xam ne euh, ñun xam nañu amuluñu du du du ñu waxal li ñuy waxal ay nombre tànk lay wut ay représentation lay wut ñoo ngay jël ay nit yoo xam ne da ngay jël alal alal bu dem nii ñu koy organiser ay séminaire rek di ko organiser ay kii ñun ñooñu mënuñu ñu représenté tey Boubacar. foo taxaw si àdduna bi boo waxee waxu immigration boo waxee waxu sénégalais de l'extérieur boo waxee sénégalais bu nekk en détresse à l'extérieur tey àdduna bi yëpp si Boubacar Seye lañ lay orienté. kon kooku mérité wu dem kii kaso. d'accord léegi euh, Boubacar Seye euh, est-ce que tamit état bu Sénégal euh, tuumaalu ko wala Boubacar tamit ak réaction yi muy def est-ce que du ab politicien boo xamante ni tey dafa làqatu. wala nit la koo xamante ni tey ab ab ab opposant la wala dafa bokk si ñi nga xam ne tey dañu contre nguur est-ce que euh, état bi jàppul loolu mais est-ce que tamit Boubacar nekkul koo xamante ni tey day politique. Euh, Boubacar xamee luñ ko parti politique te parti politique bu nekk bëgg na am ku mel ni Boubacar si xarañtam si xam question bi. mais am na ñu wax soriwut Pastef. am na ñu koy wax mais man maa lay waxal si tuuru Boubacar. Boubacar réeréwuñu ci dara dama ne amul parti politique bu mën a ñëw ne Boubacar am na sama carte membre fii gisoon nañ fi ñoo xam ne ñu ngi doon dal gouvernement bi tey du ñu mbur gis nañ fi ñoo xam ne ñoo doon toog ci table conseil des ministres di dogal di def ay arrêté di bundu xatal non lii waru fi am lii amu fi tey ana ñu jógewuñu conseil des ministres fan lañ nekk du ñu ngi si tool yi di béy ñenn ñi du ñu ngi bambaane seen ay doom Boubacar du politicien Boubacar moo téye sama ñaari lox biñ ko su man mandat mu xool ma ci biir bët nee ma maa ngi lay yóbbante si Macky sàll yaakaaruma ni woon damay dem kaso xalaatuma koon parce que defuma li may yóbbu kaso waaye neewal ma Macky sàll man duma ennemi wu état wu Sénégal man duma adversaire politique am man duma yàqal état wu Sénégal duma politicien encagoulé duma politicien encagoulé maanaam nëbbatuwuma ci ginnaaw politique pour def dara bu Boubacar politique xam nga ban politique lay def politique de participer au développement et au rayonnement de son pays. ah loolu la président Macky Sall. moo ma yóbbante loolu pour ma wax loolu Macky Sall. mais kon mbir mi bett na ko lool. Euh, xalaatu si woon kaso. mais nag nit ku diñ mu ngi noonu muy yóbbante nuyoo askanu Sénégal yépp bi mu téye sama ñaari loxo daf ma xool ci biir bët nee ma aluñ Diallo neewal ma waa Sénégal bi may ñëw du lii laa doon xaar waaye biñ ma jàppee bi ma duggee session de recherche sénégalais yi xam ne maa ngi session de recherche sénégalais yi fi nekk ak yi nekk bitim réew yépp xawoon naa jaaxle tuuti ndaxte jàpp dafa neexul xawal naa jaaxle mais message yi ma commencé jot sama téléphone nit yi may yóbbante nuyoo nit yi may yóbbante encouragement tax na ni ma xam ne si man li ma daan xeexal sénégalais yi sénégalais yi yëg nañ ko xam nañ ko tey ñoom ñoo may xeexal maa ngi si seen loxo ñoom maa ngi exprimer sama reconnaissance képp koo xam ne lii yëngal na ko naxari na ko yëg naa ko li si des nag maa ngi koy bàyyi ak sénégalais yi nekk bitim réew parce que lépp lu ma doon def ñoom ñoo doon tax ma koy def te nga feddali ñooñu mooy ni que bés bu lépp leeree dañu xam ne duma fenkat duma tuumalaate duma sàcc du ma xoqatal kenn du ma gàkkal kenn li ma intéressé li tax ma jóge Espagne ñëw toog biir Sénégal liggéeyal askan bi rek la liggéeyal sénégalais de l'extérieur Boubacar moo ma yóbbante loolu yóbbante ma nag si makki Sall mu ne ko man Boubacar si dafa téye sama ñaari loxo nee ma Alioune Diallo neewal ma président Macky sàll am na ñu nekk si wëtam ñoo xam ne bu guddee dañuy ñëw sama kër toog ma leen di bindal di leen orienté di leen ne waxal lii defal lii defal loolu loolu la def si yenn rapport yi nga xam xam ne yooyu mooy rapport état yi ñenn am na ñoo xam ne si man la ñuy ñëw ma dimbali leen ñuy liggéey liggéey loolu la ñuy jël yóbbu si partenaires yi Boubacar kenn réeréewul mbir acteur yëpp xam nañ ko Boubacar dafa wóoyan si si si si liggéeyam Boubacar tey booy émi booy def séminaire wala rencontre lu mu jëm si immigration boo ko woowee rek nga ne ko Boubacar dama soxla lii dama bëgg nga ñëw participer dama bëgg nga ñëw animer ndax si sawar ñëw bokk si léegi nag Boubacar dafa commencé gêner ñenn ñi. xam nga sànq maa ngi lay wax am na kenn koo xam ne day bind di ko saaga toujours rôle bi Boubacar di joué di dem si média yi di alerter di waxtaan télévision yi di ko invité. moom oh, mooy Sarr lay lay lay gêné wala muy Sarr mi jiite les Sénégalais de l'extérieur ndax gisoon nañu fi tamit euh, digganteem ak ki ko fi nekkoon euh, ay jamono mbir mi yombutoon benn yoon. Euh, xam nga warul gêné muy Sarr su nekkee intelligence su état la ñuy yore fekk du problème mu orgueil du problème mu tiiñal nit euh, Boubacar warul gêner kenn. waaw non xam nga tey par exemple tey boo xoolee état bi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite bëri na ay ministres yoo xamante ni tey dañuy wax loo xamante ni parfois du méngoo ak dëgg euh, di ma wax Macky Sall loo xam ne méngoowul ak dëgg ci li nga xamante ni tey moo am ci réew mi ministère yu bare ba dañuy doxalee noonu tey bu dee Boubacar nag moom dafa am carnet d'adresse bu leer ci li nga xamante ni tey mooy euh, ci diaspora bi yépp di feeñal dëgg gi di wax dëgg gi loolu euh, dana dana dana dana xaw a naqari ñi nga xamante ni tey ñoom la ñoom la état liggéey loolu te duñ ko wax réellement li nga xam ne moom mooy moo dëgg. kon ñooñu war nañu mën a xoolaat seen bopp parce que bu la état joxee di dënk la nga war a doxal nga war a defar euh, nit ki bu lay gêner war nga mën a am xam-xam war nga mën a am xel war nga mën a am xalaat boo xam ne kooku da ngay fexe noo leen di liggéeyee yéen ñaar mais du du ko lor. doo ko lor di ko yóbbu di ko di ko di ko nëbb jant bi di ko yóbbu kaso di ko jéem a toroxal xam nga tey dafa am ñoo xam ne imaginel dañu njëkkoon wax diffamation si dossier bi diffamation lañu njëkk a wax ñu ne nañu woon kan la Boubacar diffamé te gisoo tey ba tey kenn ku manifester ne man la de Boubacar diffamé waxatuñu waxu diffamation ñuy ñëw fausse nouvelle tey fausse nouvelle communiqué union européenne bi tax nga woo ma ñuy waxtaan ma ak yow communiqué bi firndeel na li Boubacar doon wax kon fausse nouvelle bi teggi nañ ko léegi lan moo fi desati jéggalu. kan mooy jéggalu. ki fa yóbbu Boubacar. ki ñun kooku la ñu bëgg a xam. ki levé action procureur de la république. Hmm. ba ñu placé ko sous mandat kooku la ñu bëgg a xam parce que bu nekkee état la kan la si ban démembrement wu état la. kon yow da nga jàpp ne état dafa juum. njuumte mënul weesu lii. njumte boo xam ne mënoo teg baaraam si kooku yéen yaa ngeen di ko waxtaan yéen seen biir rek te nangu woo leen taxaw état muy opinion bi muy kii di jaay si marché bi muy policier bi muy euh, béykat bi muy agriculteur bi muy aviateur bi muy euh, nappkat bi muy sàmmkat bi état ñun ñëpp ñu bokk nekk état te mënoo ñu wax si sàmmkat bi béykat bi kan moo si lever action judiciaire xam nañu procureur rek moo def soit transmis ñu jël ko ne ko ràpp yóbbu si kii bi mais état kenn nanguwul ñëw taxaw ne man la ah loolu moom doy na waar di. d'accord léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité Souleymane Alioune Diallo mi nga xam ne mooy njiitul ONG euh, Otra Africa waaye mooy porte parole Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières mi nga xam ne moom la ñu làq euh, jant bi Boubacar nag ci fàttali ñoo ngi ko tegee Euh, ci kasu bi si euh, kàddu yoo xam ne moo ngi ko yëkkati woon jëm ci xaalis bi nga xam ne moom la waa Union européenne di dugal Sénégal ngir ñu xeex wàllu mbëkk mi si la defoon ay interrogation di laaj xaalis boobu ana fan la dugg mais tamit euh, Souleymane gis nañ ne démb ci àjuma ji société civile bi ak mouvement ñoo lànk gis nañ ngeen def point de presse di sàkku libération Boubacar Seye li ngeen def pression ngeen bëgg a teg ci état bi wala moom lu mu pression ci état pression weesuwul nga gis sa naataango sa nawle bi ngay liggéeyal mu wóor ni la ni kii dafa xarañ ngeen bokk barab bi ngeen di liggéeyee ñu xëy ne ko ràpp jël yóbbu si kaso bi te yow mu wóor ni la yow sekk sa diggante axulaay taalaa dañ ko tooñ erreur da si am da si am leneen loo xam ne da ci làq loo xam ne amul dara loo xam ne dafa wut ak liggéey ba nag boole teg si ay sos yoo xam ne bëgg a yàq deram bëgg a tilimal mm-hmm. yow loolu di ko nangu société civile bi ñoo lànk ak ñeneen ak askanu senegal yépp dëgg rek la ñu bëgg injustice baaxul gisoo ñoo lànk ñooñu dañu jël dossier bi te ñun waxuñu leen si man bi may ñëw foofu dafa doon fekk may waxtaan ak benn avocat si bi. Mm-hmm. ñu ne ma ñëwal parce que soxla ñu xam Boubacar lan la si xalaat loolu mu ñu kii te du ñoo lànk rek ñoo si war a gis nga xale yi dellu si. Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi ñuy woo. am na si ñoo xam ne ñu ngi bëgg a yëngatu imaam yi woo nañ ñu neen ñu dañu bëgg a jàngal Boubacar Kamil parce que da ko mérité bëri na tey ay sénégalais yoo xam ne si ay entité yu bëri yoo xam ne ñu ngi mobiliser wu pour question wu Boubacar ñi nekk à l'extérieur euh, barkaati démb dafa am ñoo xam ne sax man maa leen dànkaafu nee leen Boubacar mu ngi si loxo yoon mais Sénégal la ñu nekk may leen ñu ñu leeral ba ñu xamal ñi nga xam ne ñoo buggoon jàppalu Boubacar dañu juum ñu def si médiation pacifique mais parce que tey boo leen buggee jël question bi euh, dëgg la si période mba mbas la ñu nekk yéen yaa ngeen bitim réew mais mën ngeen def ay tentative dem taxaw buntu Union européenne Bruxelles di laajte ay kii Sénégal mérité wul loolu. ñooñu man maa leen dànkaafu nee leen may leen ñu ba si kanam may leen ñu ñu waxtaane ko ñi ko def ñu xam ne erreur la ñu def ñu rectifier erreur bi Boubacar waratul def après communiqué union euh, union européenne bi si Sénégal Boubacar waratul def sa trente minutes ci biir kaso bi waroon nañu fexe xool nu ñu ko génnewee ni mu gën a gaawee xam nga lan moo si bon ñoo lank mu ngi dugal keneen dina si dugg sénégal yi nekk bitim réew dina si dugg ñu indiwaat beneen tension boo xam ne jaru ko fii si dëkk bi déjà lu ñuy dund si mbas bi ñi ñu ñàkk si mbëkk mi rek ñi ñu ñàkk si mbëkk mi rek war na tax question boobu war a doy ñi ñu kii tey waratuñu indiwaat beneen dossier dossier Assane mu ngi nii si ko Sénégalais de l'extérieur di si rey seen bopp tey ñu teewaat Boubacar ne ko ràpp si kaso bi Sénégalais de l'extérieur di bax baxi ku nekk jug di saaga ku nekk jug di kii loolu état wu Sénégal président Macky Sall mérité wul loolu gis nañ ñii di collaborer ak président Macky Sall dañu war a fexe jàppale ko dëkk bi nekk si dal ñu dem si l'essentiel projet yu mu yëkkati ñuy gas dëkk bi fépp. ñu fexe projet yooyu ni ñu ko réaliser moo gë ëpp solo tey tey doomu aadama rien que jaay ko doole noot ko askan bi di mer ku si nekk di si wax ku si nekk di kii mu mel ni benn injustice amuñu si ndodd kenn kuñ koy teg si président si ndoddu président Macky moom tamit nag mu noppi mel ni comme xamul lu muy xam lii injustice la boo xam ne moom moo ko war a fajal boppam mu xam ne ñi si wër am na loo xam ne dëgg la ay doomam lañu ñan ñi ay xaritam lañ ñenn ñi ay wëlëréewam lañu ñooy toog di naan ataaya di waxtaan di foo di reetaan di xakkataay mais jàppale wuñ ko si dul dëgg. jërëjëf euh, Souleymane Alioune Diallo mais tamit euh, li nga xam ne mooy collectif ñoo lànk société civile beeg euh, Y'en a marre yéen ci seen conférence presse bi ay daam boo jëkk ñoo ñëpp gis naa leen fa yéen da ngeen a bëgg amal ay marche pour libération Boubacar Sèye wax dëgg yàlla loolu collectif bi ñoo nekk di si waxtaan Euh, kooku ñoom nga koy laajte. Ah, ñu loolu seen dossier la ñoom ñoo xam ban stratégie ñoom ñoo xam lan la ñu bëgg a def euh, Boubacar nag Boubacar national la nee naa la léegi am na ay imaam yu bëgg a jàngal Boubacar Kamil dañ ñu ko yëgal su si yàlla defee dañ ko dem fekkee ji. Mhm. nee naa la sénégalais yi nekk l'extérieur ñu ngi organiser wu ñun dañ leen mën a téye. tey yow si sa bopp boo buggee dem taxawi ji fenn pour kaaw Boubacar duñ la téye ñun xam nga lan moo ñu yëlëm. mooy nag Boubacar na génn si kaso bi. maa ngi ñaan à travers seen rajo bi képp ku mën a def médiation képp ku mën a attiré waat attention wu état bi ñu xam ne dañu juum si kaaw Boubacar ñu génnee Boubacar si kaso bi maa ngi lay ñaan di wasu si àq dox si jàmm Boubacar génn si kaso bi dañ ko tooñ. waaw mais Aliou euh, yow euh, Aliou Souleymane Aliou Diallo xam nga yow sa stratégie wala sa xalaat. mooy kañu def médiation waxtaan ak Macky Sall mais boo xoolee ay collectif ñoo lànk ak ay waa Y'en ñi nga xam ne ñooy jàppale Macky Sall euh, ñooy jàppale Boubacar Seye euh, autant pour moi euh, ñoom ak ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñoom dañoo jàppane ne Sall ak ni mu bindoo ak li ñu xam ci moom maslaa du mooy saafara mbir yi. ñii ñoom dañoo jàpp ne dañ koy tàngal booyal ko ba mu boy ndax démb dégg naa ñu wax sax ne jamono ji Boubacar say nekkee ci kaso bi ay jegeñaale Macky sàll yoo xamante ni tey dañoo sàcc alalu askan wi ñoo ngi dox seeni ñoo ngi dox seeni yitte tey tamit liir naa ci samedi ji benn journal Sud Quotidien mu wax que ne euh, li ñu ko fan yi mooy jegeñaale Macky sàll yi euh, ñu seeni procédure nekkoon ci wàllum yoon dañ ko dañ ko classé 108 lu jëm ci mbirum pétrole ak bi ak lu jëm ci mbirum Mamour Diallo moom nga doon wax sànq nii ba pare ñi nga xam ne ñooy ak ñooy activistes yi ak lanceur d'alerte yi ñu leen di traqué euh, di leen di teg fitna est-ce que yow Aline Souleymane Diallo jàpp nga ne Boubacar Seye pour mu génn médiation mooy tax mu génn. Euh, man dama jàpp ni que Boubacar erreur moo ko tëjlu ñu jege nguur gi ñoo si teg seen loxo Boubacar te kii ñu tëj Boubacar. Euh, conscientiser leen Boubacar c'est un pacifiste Boubacar c'est un non violent Boubacar c'est un intellectuel réfléchi qui produit de la documentation donc Boubacar euh, tey fi mu nekk amul dara lu ko mën a tey dañ koy defal Boubacar dafa yàgg liggéeyal doomu aadama yi société civile bi Boubacar da si participer à la réflexion de la question migratoire ñu si bëri ñi nga gis si table bi foofu dañu liggéey ak Boubacar le professeur Malick Ndiaye xaritu Boubacar intime la suñ kii Bakary Sam docteur Alioune Tine euh, euh, Ngone Ndoye euh, Amsatou Sow Sidibé Fatou Sey Fatou Kissé Sarr ñoom ñëpp ay wëlërewu Boubacar Seye lañu donc loolu moo tax ma ne euh, ku si mënti jàpp ak ndax loo si mun ko mënti jàppee man de li ma intéressé si mbir bi mooy na ñu rétablir Boubacar dans la vérité ñu génnee ko. Ah, mais mais yow est-ce que xam nga tamit tey yow ni ma déggee ngay waxee sànq ni mooy que yow euh, ndax Sénégal yi nekk bitim réew am na si ni nga ko waxee ñoo xam ne pare nañ pour organiser ay manifestations ci ci consulat yi et tout ça mm-hmm. euh, yow nga dalal leen. Mm-hmm. yow da nga mel ni que da bëgg a jël voie boo xam ne mooy voie pacifique waxtaan. ba ba ñu bàyyi libéré Boubacar moo tax dama ne la Macky ak ni mu bindoo est-ce que nit la boo xam ne dañuy maslaa ak moom wala nit la boo xam ne dangay weñ loxoom teg ko pression wàcc si mbedd mi ngir mu mën a jëfe li nga bëgg. xam nga am na ay sénégalais yoo xam ne loolu la ñu gis si Macky Sall ñoom loolu la ñu bëgg a def ñooñu sénégalais yooyu ñoo xam lan la ñu gis si Macky Sall ak lan moo tax ñu jàpp noonu Macky la mais man ki ma téyel baatam mu yónni ma avocat njabootam toog ñaari xaritam toog mu ne leen lépp loo leen di def lépp loo leen di wax fexe leen Alioune Diallo toog ngeen waxtaan si ba déggoo si Alioune Diallo yónni naa la si askan bi xam nga te man ma xam ko ma xam lu tax mu jox ma kàddoom kooku du nitu du nitu ay ay moo dal si kawam man kooku lu ma koy waxal ñun yéenewuñu Sénégal luy gàkkal Sénégal wax ji dafa am solo su la neewee mu jox ma man téye sama ñaari loxo nee ma neel Macky Sall man du ma ennemi wu état wu Sénégal du ma adversaire politique am du ma politicien encagoulé gis na ñetti baat yooyu bu si nekk dafa am solo ennemi wu Sénégal mooy ni ko moom du comploter contre Sénégal du gàkkal deru Sénégal du moom mooy tilimal Sénégal bu Boubacar déggoo leen benn si interview am bu mu nee gouvernement wala état wu Sénégal état rek la wax te si la bokk. du adversaire u Macky Sall balaa ñuy ne non dafa bëgg a jël nguur gi dafa bëgg lii dafa bëgg a lële lii ak lii la dafa contre Macky sàll gis na ñi nekk ñi jege Macky Sall ñoo bëggul Boubacar ak Macky Sall toog Boubacar ak Macky Sall bu ñu toogoon ñu waxtaan si immigration loo xam ne gis nga wax ji li ko yëngal Boubacar dafa dafa convaincre euh, ñi nekkoon ci salle bi par rapport ak loolu ba kooku da ko ne yow li nga ci xam ak man li ma ci xam il faut ñu toog waxtaan. te keneen bu toogoon tamit ak Boubacar rek nga kontaan si moom question bi da ko xam ba guux ko ba naan ba tey ba taxaw fële. Boubacar su la neewee ni que moom du politicien encagoulé mooy ni que du utiliser yenn stratégie yi i participe au développement du pays ku mel noonu kon xam nga ni jàmm rek lay woote léegi nag bu ñu ko téyee yow yaa xam nan nga mën a jàppalee Boubacar man daal képp koo xam ne maa ngi woote encore njiitu diine yi. njiitu église bi benn exemple laa lay jox si bëgg a jàmm Boubacar xam nga Boubacar dafa initier benn prix boo tudd mu ngi tudd prix de la paix boo xam ne prix euh, sëñ Mamour Mbacke radiyallahu taala anhu ambassadeur de la diaspora noonu lu ko tuddee prix bi xam nga kan lañ ko war a jox Pape François bu bu église bi sëñ Mamour moo war a jox Pape sa euh, Pape Pape François mu si dox di si wax boobu ba léegi xam nga ni kooku doxul si fitna. kooku du dox luy gàkkantal deru Sénégal. d'accord léegi yow euh, lan ngeen xalaat yan jéego ngeen xalaat comme def ngeen euh, conférence de presse société civile ñoo lànk ak euh, ñenn ci société civile bi def nañ conférence de presse démb ci àjjuma ji ngir ñu libeere libéré Boubacar Sèye ba léegi ni ma ngi ci kaso bi lan ngeen xalaat pour mu génn lan mooy seen xeex. jàmm ak salaam. nan ngeen koy ñu génnee ko rek. ni ñu koy déggee mooy ñi ko téye xam ne dañu juum. ñu fexe mandat dépôt dafa gudd procédure bi ko dugal ci mandat dépôt ki ko dugal ci mandat dépôt ki xalaat xalaat mandat de dépôt bi lor Boubacar rek moo ko taxoon jóg. mais est-ce ngi def dox diggante état pour médiation. Euh, fu mu nekk nii état waxuma état dafa am ay démembrement am sànq loolu laa doon wax xam nga tey ñu ngi ne état moo ko kii mooy pouvoir judiciaire bi ci état la bokk mais parlementaire yi maa ngi ne député de la jaspora nañ si jóg dox si wax si bii seen dossier la bu ñu xool seen intérêt wu parti yi bii nag mooy dossier bi nga xam ne mooy seen dossier tigi parce que léeg-léeg dañu doon laam-laamee tey position bu amee diggante diaspora bi am benn soxla seen parti yi am beneen soxla mu war a dem assemblée nationale fan la ñu féetee. dossier bi ñoom ñoo ko war a mën a porter devant le parlement ñoom ñoo ko war a mën a yóbbu même à l'international parlement union européenne fépp fu ñu xam ñoom ñoo ko fa war a mën a yóbbu. mais bii seen dossier la. mais xam nga Souleymane man li ma jaaxal ci affaire bi mooy yow da nga wax ne Boubacar Seye euh, tooñul tooñul kenn mais su ma la déggee tamit dafay mel ni yéen dangeen a bëgg a def médiation ñu bàyyi Boubacar Seye mu ñibbi këram mu jeex xam nga tamit loolu euh, dafa yomb tëj kaso mais ka ñu def la garde à vue rek ci ay maali foro rek wuruñ na la bàyyi nañ la nga dem comme ça yéen est-ce que pare ngeen waxuma la pour négociation ngeen neexal état bi wala ngeen waxtaan ak moom pour bu Boubacar noppi pour ñu génn ko ci kaso bi ndax dama ne pare ngeen pour wax ak ONG yu mag yi nekk ci biti àdduna bi yépp est-ce que pare ngeen pour Sénégal yi nekk ci diaspora yépp dugal ci seen loxo ngeen xeex ci loo xamante ni tey du ngeen neexal nguur gi sans condition Euh, ngeen rek ñu rétablir dëgg gi est-ce que loolu ngeen di def wala yéen da ngeen a bëgg daal euh, waxtaan euh, def ay prox ndoll bu bëgg say génn nekk ci activité am. gis nga ñun ci sensibilisation wu la vérité dans cette affaire la ñu nekk léegi nag ku nekk ak nan nga koy interpréter Boubacar encore une fois de plus sàccul fenul nekkul ci ay complot. loolu wax jooju laa bëgg mu leeraat dawuñu ñu gauche daw ñu droite jubal la ñu dawal xam nga lan lañ nekk di def on sensibiliser yow Seck yow la ñu sensibiliser Macky Sall la ñu sensibiliser ki téyelu Boubacar ki nga xam ne moom si boppam moo actionné levier yi moom si boppam dañ koy sensibiliser pour xamal ni ko da nga juum. donc nekkuñu ci médiation yi médiation ak bu nekkee médiation lañ ko mën a tuddee nañ ko tuddee médiation bu nekkee sensibilisation lañ ko mën a tuddee ñu tuddee ko sensibilisation bu nekkee action lañ ko mën a tuddee ñu tuddee ko action mais xam nga lan mooy fondamental man ñun lu ñuy wut mooy na Boubacar génn ci kaso bi léegi nag au niveau international Red Brody il est informé HDH ils sont informés Human Rights Watch est informé ñeneen ak ñeneen ils sont mais est fu mu nekk nii la question est que est jar na ñooñu ñëpp di dugg ci un dossier sénégalais. su suñu appréciation man damay jàpp que une erreur c'est une erreur une erreur se corrige Boubacar bu ñu def orgueil bu ñu def yëfu tappale tey wóor na ni ku dégg waxtaan bi. wóor na ni Boubacar dañu juum juumte moo ko dugal ci kaso loolu nag day am. bëri na ñu nekk ci kaso bi ñoo xam ne erreur moo leen fa dugal bëri na ay innocent yu nekk ci kaso bi mais Boubacar c'est un leader d'opinion nañ ko génnee ci kaso bi mu continuer def li muy def Boubacar c'est un partenaire de l'État du Sénégal Boubacar c'est un partenaire du gouvernement du Sénégal Boubacar c'est pas un ennemi de Macky Sall gis nañ ñi bëgg a créer Macky Sall ay ennemis ñoom ñooy xajamal lii ñoom ñooy tëx ñoom ñoo buggul dégg. ñooñu la ñu war a wax ni que nañu bàyyi Boubacar si jàmm ak salaam Boubacar ñibbi ci biir njabootam. d'accord jërëjëf euh, Souleymane Alioune Diallo. Euh, ñu jeexale kook euh, question bi ñaari question lay doon doog a tàggoo yéen ñi nga xam ne yéen a jiite ay ONG parfois da ngeen wax ne du ngeen ay politiciens mais yow ñu bari dañ la doon tuumaal sax ne da jege ki nga xam ne mooy Khalifa Sall lan nga ci tontu lan ngay tontu ci loolu. <laughs> waaye gis nga yow question bi moom xalifa euh, Sall. Mm-hmm. dafa bàyyi soxloom ñëw fekk ma Sevilla ñaari fan. fan Sevilla en Espagne. Mm-hmm. ñu liggéey ci benn projet. projet bi mu ngi fii Hann Bel-Air waa cabinet xam nañ ko. Mm-hmm. ay doomu xalifa Sall. tonton lañ may wax. ay doomu xalifa Sall tonton lañ may wax li ma engage ci do ci dossier Boubacar loolu moo nekk sama diggante ak xalifa Sall. Khalifa Sall du jàmbur si man man euh, am na sa yenn yoo xam ne du ma si suux trop ñi xam xam nañu si njëlbeen nee naa la man bokkuma si benn partie politique injustice laay bañ Khalifa Sall dafa di woon suma xarit jàppe ma comme rakam doo dégg mu bàyyi fii mairie bi mu ngi nekk maire de Dakar en plein exercice puissant xalifa Sall adduna bi yëpp di daw si ginnaawam fu mu taxaw ñu teeru ko teral ko tatagal ko def ko nit def ko kilifa xalifa di ma déglu maak moom ñuy waxtaan mu am benn projet boo xam ne mu ngi fii école espagnole bu bu Hann bel bii ma si doon dox di si wax ma wax ko xalifa Sall mu nangu ko ñëw jël ab disposition ma yóbbu ko ba si mairie Sévilla ñu waxtaan ko quelque temps après kooku nekk si diggante ay loxo ma si doon dox di si wax di si xam li ma si wax xalifa sàll suma mag la suma xarit la ku ma ko jegelente rek nag dafa xamul li si nekk d'accord jëluma Khalifa Sall di xeexal kenn dama jëloon xalifa sàll jàpp ni li daloon Boubacar Seye mii dama lay jox benn exemple xalifa du nee nañ ko ràpp nekk si si kaso bi bëgg mu génn nan la Khalifa Sall génnee si kaso bi du dañ ko dàq daanaka buub ay bagages sànni parce que demoon nañu métti woon na ba métti ñoo xam ne erreur la ñu génnee ko du noonu lañ ko génnewee si kaso bi xalifa Sall bi mu génnee sa kaso bi lan la def ñoom ñaar waxtaanuñu Macky Sall soxla ko dans le cadre de consultation des forces vives de la nation invité ko pale ñoom ñaar ñu dem toogi waxtaan yi palais lan moo tax Boubacar Seye kenn invité wu ko woon dans le cadre force vive de la nation mu dem toogi waxtaan ji ak Macky Sall Khalifa Sall suma mag la. j'endosse entièrement une relation franche, une relation sincère, une relation fraternelle, une relation d'estime et de considération envers Khalifa Sall. jërëjëf euh, jërëjëf euh, Souleymane Aliou euh, lan ngay lan ngay tàggoo ñu fàttali ne yow yaa jiite ONG Otra Africa ba pare yaay porte-parole Boubacar Seye mi nekk ci kasu bi lan ngay tàggoo ci rajo Réew mi FM Aliou. Seck ma leen di nuyu di leen sant wax ji amaana ne am na lu si dëng. auditeurs yi ngeen jàpp ni que pas-pas ak yenn yóbbante koo xam ne tey mënulul dara boppam mu ngi nekk ci ginnaaw xool ma ci biir Sénégalais yi mu doon collaborer yépp nee ma jox naa la sama kàddu waa ONG am ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey mu ne ma waxalal ma ak askan bi dénk naa la lii jaajëfal ma waa askanu Sénégal jaajëfal ma waa askanu Sénégal ñu xam ni man tamit ñoom rek laa doon liggéeyal yóbbante naa la ci Macky Sall man du ma noonam Boubacar Seye du noonu Macky Sall du ennemi wu état du politicien encagoulé nañu jàpp loolu ñu bàyyi ko mu ngi jaajëfal waa sénégalais de l'extérieur di leen xamal ni ko moom. ñoom la daan liggéeyal ñoom moo tax lii dal ko dénk na leen boppam ñu ngi ñaan yàlla lii yàlla na si yàlla def ndox bu sedd Boubacar delluwaat si njabootam si jàmm ak salaam. d'accord mais euh, euh, sànq yow bi ñu doon di commencé danga wax ne dafa demoon Espagne ci anniversaire doomam euh, nga wax tamit Boubacar ni mu fonkee njaboot instant yi ni mu nekkee ci kaso bi nii est-ce que wala bi ñu ko defee garde à xalaatul njabootam de trop est-ce que loolu tamit mun méttiwu ko. garde à day dem kaso Boubacar daf ñu newoon duñ ko wax njabootam Boubacar ñetti fan yi mu nekk si kaso bi yëpp daf ñun daf ma ne wax ko xaritam wax ko mbokkam ne bu leen ko wax suma njaboot Espagne xam nga ni kon kooku yaakaarul woon dem kaso Boubacar li mu nekk garde njabootam Espagne xamuñu ko woon parce que yaakaarul woon day dem kaso xalaatul woon kaso bi euh, ñu ngi si njabootam ñu ngi si yëg nañ ko Euh, jërëjëf kon ñoo lay waa kañ jërë ngeen jëf euh, ñuy jéggalu di leen remercier encore waxtaan bi amoon na solo trop ñuy ñaan yàlla suma mbokk suma xarit Boubacar Seye yal na si yàlla def jàmm mais rappelé waat encore président Macky Sall à travers seen eh, seen antenne collaborateur u yi ku si munti wax nanga wax dëgg sa diggante akulaay taala ñu fexe Boubacar Seye génn si kaso bi. jërëjëf euh, Souleymane Alioune Diallo moom moo jiite ONG euh, Otra Africa ba pare moo nekk porte parole Boubacar Seye moom la Boubacar Seye délégué euh, pour mu koy pour mu yoral ko kàddoom mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci rajo réew mi FM Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ñu leen di jox samedi dig daje samdi bii di ñëw bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu jër ngeen jëf jàmm jàmm.